ko waxee moom comme waa Bañe dafa may nekk dafa nekk naka xale yoo xam ne dañ nangoo dañ nangoo dégg tamit xam nga ñu ngi am ne tamit comme ñun nekkul mag yu tamit ñoom waaw discipline moom xam nga rek mooy lifin bi mi facteur bi soo gisee comme man Abdou Boy Youss yow sax ñëwul nga at naka Pa Dudu ba pare ñu am yeneen doo tamit ñoom ñoom M Boy Aston Apia ñun moom comme ni ma ko rek comme su ma fi jógee nii foofu laay leen toog waxtaanee ba pare ne day naka dina mën a déggoo si affaire team bi lu bëree bëri na ne wax ba pare xale yaa ñu déggal lu ne wax dañ koo def moo tax soo gisee force bi nii naka si force naka force du bi kenn mënu ñëw win que football dafa nekk loo xam ne xool su nekkee rek di nga naka booy nga am lu bari ñun moom suñu team moom waaye loolu tax muy dem xale yi moom dañ na koo déggal ba pare seen nekk benn gis ne ñoom naka fu gaay toog gaay ñoo kaf ak reer lañ fa nekkee moom. waaw comme man ku ma xamee rek moom xam rek comme ni ma nekka li ma lay wax rek man li ma lay bëggoon rek ñëpp nekk ak benn xam nga rek moo tax man di fi xaajaloo man bu yooyu xam rek moo tax man daal li ma lay wax daal man daal lu ma ñaan de ñëpp nekk ak benn soo gisee affaire bi ñëw benn saal bi ñëw nii comme ñun dañ dee toog fii di waxtaan maa ñoom booy nii ñoom Saliou ñoom Malick. ñu ba si jàppoon ñoom Abdou Boye ak ñoom Adi xam nga dañ toog mi la bés ñu ne ñun comme yeneen gox ñu ngi ko def waaye nag naxa bàyyiwul sax tamit def loolu tamit soo loolu la ko defee force bi li fi na woon xontin la woon xam nga ñu def xontin si ñëpp jàpp si mu neexee soo léegi ñu ne waaw léegi ñoom dañoo ñëw carnival tamit dafi cultural xam tamit ñu def ko force bi feebawaat li na woon étin la woon soo mu neex tamit daal soo léegi ñu ne daal ñun daal fële nga koo jàpp rek moom xam nga rek lu nekk ak benn man daal si loolu laa bokk a booy. saa yi li moo am affaire yi benn Banjul South bi benn sa bi man first edition bi bokkuma si woon understand nga bokkuma woon waaye laay moom bokkoon na foundation bi understand nga ak ya imaam mu ngi nii toog Adi you know mom. non dina nyu, dina nyu, understand nga Legi léegi affaire yi affaire yi affaire yi comme cause dañ defaroon dañ defaroon suñ suñ suñ constitution even do register guñ ko woon sax waaye liñ doon wax yëpp mooy dañoo make because comme jamono bi jamono bu mu tombee la understand nga So so bàyyi xel Gambia ni nekk di movie understand nga Post jaame régime bi da nga gis ne comme daf dee yomba trop pour nit xam nga political one one time rek xam nga rek affaire yi lu lu lu xaw am politique understand nga so dañ strictly woon buñ si si paak bi fii lañ ko lañ ko mitiné woon waaye dañ waxoon dañoo fomle nii understand nga waaye dañoo make sure ne dafa dafa apolitical dara du si rax politique yaa ngi understand so loolu loolu daf ñu overla dimbale and loolu daf loolu da gis ne force édition bi loolu daf ko boom la woon mu dem understand nga soo ñëpp dañ si gisoon seen boppa ñetti woot si yëpp understand nga soo second édition bi waat xam nga mu gën a escalé dem waaye after second édition bi because second édition bi mooy last independence day bu passé nii waaye bi mu amee ok jotoon nañu fekkoon nañu ñu generate some funds ak yooyu noonu xam nga amoon nañ tuuti xaalis even doo amuñu woon lu bëri sax waaye waaye li si amoon solo rek mooy because li ko taxoon a jóg du woon make du woon make money xam nga dañ dañ bëggoon lu ñu unify rek as a as a as a constituency understand nga amoon nañ loolu noonu primary target bi jotoon nañ ko léegi bu loolu amee suñ benn sista bu dëkk fii xam nga ñu ngi ko ñu ngi ko nuyu sax yaa teneen so moom moo ñëw with that idea understand nga so suñ whatsapp group bi after mu ne mu ne covid 19 bi mu ngi am and you benn Banjul South xam nga is a movement boo xam ne buy dem la bu bu rax mag rax middle age rax xale yi understand nga soo su ne middle age xëj na comme ñun la ak yooyu noonu doo ñun duñ xale waaye tamit naka guñ mag understand nga xëj na waaye mu ne waaye not tamit ñu try ñu am dara luñ def tamit ñu fight at least ñu wane ne ñun tamit xam nga ñun we are representing big time understand nga so mu ne mu ne ok man suggestion naa pour ñu ñu jënd yenn equipment soo xam ne dañoo fight this covid so covid 19 yooyu noonu bu ñu ko jëndee woon sax man personnellement man maa ko seeya yow si social media bi understand nga so moo tax ma ne sax xaar ma response yi waaye tamit dañ ko saaraawut moom sista bi am yaataneng moom moo ñëw with that idea moo wax ne ok waaye na ñu jënd ay equipment an loolu amee am na yeneen individual soo xam ne within ourselves la ñoo xam ne bokk nañ si group bi ñoom sax seen own pocket money la gay génnee xam nga du ma mention name xëy na ak yooyu noonu sax understand nga waaye ñun xam nañ lépp gars yi génne seen xaalis jox ñu dimbale ñu ñu yokk ko si understand nga ñu jënd ay eau de javel ay omo jënd ay yeneen ay dosbin soo soo bàyyee xel ñu ngi si defoon ay benn Banjul South sax pour wone ne lii ok ñu tamit at least foog ñu wane dara wone ne xam nga ñu tamit ñoo bokk si fight against Covid 19 bii nii so noonu la whole idea bi ñu. xam na ne sax like lañ fi jot a toogagum sax it na am na yenn pollution yoo xam ne irrité na la so ñun moom lañ dëkkee nag understand nga. so da nga gis ne dust pollution bi noise pollution bi daf ñu dee daf ñu dee daf ñu dee gëtën gëtën nañu moreover nag mag yi mag yaa ko dee gën a jàmbat understand nga ak road accident bi daf fi bari fi man xam mun xam man fekkee na waxuma laa xam de waaye fekkee naa fi ay accident yoo xam ne yooyu yëpp dam si main road bi nii la xewee xam nga because mainly because trox yi nii because trox yi nii maa ngi a fàttaliku bu benn time mais bi fi nekkoon bi mu leen bi mu leen allocatalee place boo xam ne dañoo génne off the city ñu nekkat Bond Road fële pour ñu nekk fa woonu at least pour nga mun a create space fii nii waaye after some time loolu mu ngi mel ni musuta am ñu troc yi nii lor la ñu def ak stores yi soo xoolee stores yi mooy stores yi ak nit ñi ñoo bokk place léegi léegi doo mun a xamee residential area bi ak ak ak ak stores yi ak commercial area yi because li fight nañ ko man waxtaan naa si ak suñ député bi understand nga waxoon na si daf tey jël steps Li problème la demba problème la tey te dafaa nekkaat problème ëllëg because life daf si dee ñàkka xale yi ñoo si gën a victimes nag understand nga because mënuloo nekka mënuloo ñëw paak fii tëj yoon bi soo demoon suñ boor ngaa gën a ay boor yi bokkul down down nele da ngaa nekka sa sa génna comme su yow su emergency waroon a am sax yow doo mun a génna la yow pour mu tuddee yo sa problème yo pour nga gina yo yo nit ki sax problème la mo nek da nga am pour wiré ji xam nga luma la expliquer ni so mu ngi nek problème bo xamné ñun ñu ko koo mon for the past 20 years man since bu ma mak yépp man maa ngi gis li wax nañ nak ba sona understand nga so dañ ko joyat ci autorité ñu ñu mëna a ñu ci mëna a ñu dimbalé ñu ci wat ci understand nga because ñun ku nek tamit yo fi nga dëkk rek nga am dé understand nga man bañu la dika so bañu South la dika and Afdaye la dika so man awma fenen luddul place yi ni ya nga understand so dañ joytu wat ñu ñu mëna dimbalé ñu dimbalé ñu na ci authority def yo yo def dara because ñun ño container yeeg troc yi stoo yi mënuñoo dëkkaat so démé si benen end bi benen side bi fi lénel fofu foofu tamit Banjul South la di nga gis problème bi ma wax gis na ci console bi ay réer boobu Pa babu cham maa ko nuyu daf ci dee overlap daf ci dee overlap def ay djégo because lo dem ay Oxford ko ñu residential area bu melni Oxford nga ne da nga fa nga build stores can you imagine soo loolu méegut benn sens xam nga soo dañoo dañoo dañoo appel xam nga rek si ñu ñu war a dimbale ñu dimbale ñu understand nga booy dëkkuwaay dafa am dafa am dafa am area soo dencukaay yi tamit dafa am area soo Sool Slim Ndiaye sax maa ngi fàttali ko movement am boobu noonu xam nga rek yow opération no no no xam nga no stores xam nga no dencuwaay balaa dencuwaay dëkkuwaay understand nga soo maa ko see nuyu moom it understand nga bu baax li ma la nii soo ñun daal loolu loolu is a big big big problème fii Banjul South especially after I bought port bi nekkee so ñun we've been living with this for the past your 20 years or so Okay, so my deputy, I mean our MP our parliament member understand nga Fatoumata Ndiaye o Touma Ndiaye waxtaan naa see moom te xam sax daf ma dee daf ma dee kassal lolu because gis na ko mu bind ko Facebook Watan nañ ci before sax moom mu falu mom lolu because li, comme waxuma la nitut sa yo pour nga nek wa fi de yo so fi ñëwee ba just be here, rek war nga mëna xamné li ni li li is very detrimental pour nit ñi war fay mëna a troqué ak container yi route la witness na fi ay three accidents yo xamné ay xalé yu ndaw less than ten ten years la moto di door ñu dé ci instant bi xam nga simply because da nga gëna seen kër yo do xamné moto ngee ñëw moto ngi park fi moto ngi park fi da nga gëna rek moto door la xam nga su dé mag la sax war nga xam nga di nga mëna moytu jaar fit part bi ak yooyu noonu understand nga so this is it so mang mangé appelat hamga xam nga rek mangé appelat ci si tuma you know ak yeneen autorité yi ñu war a mën a jàppale ñu jàppale ñu police yi xam nga war nañ ko mën a def because fii booy dafa war a nekk booy fii no no parking zone la war a nekk because moto yi booy booy port fii la nekk an fii nu mu dee busy booy Monday ba Friday léegi soo amee moto bu paak ne truck boo xam ne is weighing more than hundred tonnes mu paagee nii chargé ba dix yow taxaw si Johnson bi léegi moto si war a koof sax dafaa jël risque pour koof because mun naa koof rek tombé moto ngee daw fifty wala sixty moto moto semaine yi gàlli semaine su fi taxawee gis nga moto semaine yi nu ñu yow xam nga sax because independence drive la gay di jaar moto yi dañoo change fii jiya ba ay 7 jiya laa laa waxal nii am not exaggerating dañoo daw fii ay 60 70 wala 80 guddi fii loolu booy any slightest thing bu xew rek disaster mooy am because doo mun a break si instant bi moto boobu noonu booy yoo xam nga nu mu am dañoo appel booy pour gars yi dimbale ñu soo waxee dara du si dee génn man fekkee naa witness man witness naa siin bo xam ne driver bi dafa jotté police bi mu door police bi man bokkoon na si ñu ko doon kan yu imagine bi gaay démé ci police bi man driver bi la ñu gis mu si so what's up man lan mo xew xam nga door police so dañu appel rek xam nga rek pour gaay jappalé ñu you know nga comme second phase bu gaay yi félé fële na le moom moo gën a si bari fi gëna am légui nu mel because time bu cang bi amon na man bima la xam time bi ciang bi la la xam understand nga wala nga gis ne comme moto yi dan taxaw ni nii ñu daan taxaw si biir si ciang bi understand nga tay boobu noonu gars ciang bi ñom ñoo dan am problème boobu noonu legi bi ciang bi port jël nañ fofu nonu man ko duma ci si wax lu bari ko xaw ma naka la naka la ko port jëlee understand nga way li ma wax mooy way yi ni li man dama ko jappé comme comme lu irresponsible nga gëné fi ay nit ba pare ñoo def fi way war nga ko mëna jaay sax nga def ko store fine way tamit nga sóoraale yenen yenen nit yu wara a ci kaw yow ci di dixième place bi because war nga mun nga mun nga jaay sa kër sa kër bo xam ne yow ten nit a fi on instant nga nga jaay ko def ko sto be pare mo dan ten nit dëkkaat fa. naa dal man dëkkaat ma fi tay de waye tamit da comme lu Saliou wax dal ala naa si loolu tamit soo tamit ne nekk ni bu problème bu baax a baax waaye fanaa la police tamit wala wala wane na def seen police dina def sen liguey non tamit de parce que da nga gis ne moom liggéey toogi lu ma gis fi rom paakin booy dawul paakin booy ba pare police booy duñ ne wax day day tra booy rek nekk ak gars yi seen waay tamit soo dee xam booy